bi ñu jagleel euh, petite et moyenne entreprise tey ñu euh, ci am euh, rafetlu di recevoir premier moom monsieur Amadou Ba moo ko présidé forum bi tey bis bi solo bi moo doon inauguré benn plateforme benn guichet unique de financement maanaam benn portail nu ma ko woon expliqué espace de dialogue la boo xam ne PME bi mu mën toog xool Sénégal day mën a

wane nañu aussi euh, euh, engagement bi ñu am à de l'État ci liggéey bi ñu def. Euh, ñu def guichet bi guichet bi dañ ko benn programme guichet dafa dafa nekk benn outil boo xam ne mooy mettre en programme programme bi mooy benn programme li ko directeur ADP moo waxee c'est un programme de financement massif et sécurité programme boobu dañuy jàppale entreprise ñu formalité wu maanaam ñoom état financier yoo xam ne banque dañ koy wóolu soo soo gisee jafe-jafe bi entreprise yi gën a am parce que financement mooy mooy manque de confiance yi banque yi di am ak aussi problème de risque yi banque yi am pour apprécier entreprise yi xam nga banque pour mu lebal xaalis il faut nga indi ko ay dossier mais dossiers yooyu mooy banque bi wóolu problème la bu fekkee banque bi aussi pour mu mën a càmbar xool yow nooy gérer sa entreprise prix bi cher prix bi cher parce que maa ngi la day lebal xaalis xaalis boo xam ne xaalis boo xam ne yéen ak ñun ñoo ko moom wala ay institution institutionnelle ñoo ko ñoo ko déposé donc mbir la boo xam ne donc ñu koy saytu ànd ceeg tous les services de l'État di accompagner ànd aussi ñu formaliser wu mais aussi ñu renforcer seen wàllu éducation financière xam nga lu am solo il faut PME yi gën a xam produits financiers yi xam lan fan moo ci njëriñ pour ñoom naam PME mën na dem ci banque day ko soog ci de compte bu defee ko prêt prêt à la consommation prêt de consommation alors que PME bi du mu soxla woon mooy benn financement boo xam ne c'est juste pour lever ay tension de crédit bu mu am comprendre nga loolu moo waral solo ndaje bi euh, xam naa ne samedi incha allah ci la ñu gën a ñëw en détail ci programme mais ñu jàpp ne guichet euh, bi guichet unique de financement yi guichet la boo xam ne ADP moom moo ko développé ànd ceeg euh, la GIZ te bañ koy liggéey ñëpp a bokk ñëpp a bokk banque yi ñu leen bokk li ma koy les les les institutions étatiques de crédit yëpp bokk maanaam daal ñëpp ñu ci biir guichet tey soo soxlaa information ci financement nga cliqué ci guichet bi soo soxlaa financement aussi am na ay structures yu fa nekk banque yaa nga fa ñu mën a ay parce que ay espace zéro nekk ñu mën a wax ak yow tontu la mu gën gaawee traité société mu gën gaawee dafa def financement mu gën gaawee